Bonjour. Avant d'entamer mes propos, je voudrais m'incliner devant la mémoire des Sénégalais qui ont perdu la vie durant cette épidémie. Monsieur le ministre de la Santé, de l'Action sociale, Madame la derniers mois comme l'avait rappelé tout à l'heure Dr Bousso, a pris une nette augmentation ces deux derniers mois, notamment entre le troisième et le cinquième mois. Ce que nous avons noté, c'est que les cas sévères ont diminué, les cas sévères et les cas graves ont diminué, et conséquemment également, les décès ont diminué au cours de ces derniers mois. Le 4 août, on en était à 526 patients qui avaient présenté, en tout cas, qui se sont présentés dans nos structures dans des situations de détresse, avec euh, un taux de décès qui était à 218. Hier, on en était à 682 patients donc qu'on a pris en charge dans des situations de détresse. Et on a noté que le taux de décès a diminué, en tout cas entre le 5e et le sixième mois. Les chiffres ont été donnés tout à l'heure par Dr Bousso. Ce que nous avons noté également, c'est qu'on n'a pas noté de changement par rapport à certains paramètres, l'âge moyen, c'est toujours les patients âgés. On a un âge moyen toujours supérieur à 60 ans, 65 ans, mais également parmi les patients qui présentaient ces comorbidités. Nous avons également noté qu'il y a eu beaucoup de progrès dans la prise en charge. On en a parlé, l'augmentation des sites de prise en charge en général. Toutes les régions présentent euh, en tout cas, des sites de prise en charge des CTE, mais également l'augmentation des sites de prise en charge des patients sévères et graves. L'autre remarque qu'on a pu, en tout cas l'analyse qu'on a pu euh, faire au cours de ces derniers mois, c'est que nous notons une diminution des délais de prise en charge. Nous le décrions les mois derniers, les patients arrivaient tardivement avec des complications et ce qui impactait forcément sur le taux de décès. Ces délais de prise en charge commencent assez tôt depuis les domiciles et ce qui permet d'évaluer très rapidement, mais également de débuter très rapidement, parfois même dans les domiciles, donc les traitements qui nous permettent de d'avoir de bons résultats, dont l'oxygénothérapie, dont également certaines, euh, euh, pour certains protocoles thérapeutiques qui ont été validés ici, dont la corticothérapie et le traitement anticoagulant précoce. C'est l'occasion de remercier toutes les équipes qui travaillent dans le préhospitalier, qui ont joué, un rôle extrêmement important. C'est le cas du SAMU de Dakar, c'est le cas du SAMU de Saint-Louis et c'est le cas également tout récemment du SAMU de Kaolack qui commence à rentrer dans le dispositif de prise en charge. Mais également les services préhospitaliers privés qui ont joué également un rôle très important. Comme autre avancée qu'on a pu noter, c'est les procédures de tests rapides avec l'Institut Pasteur qu'on a mis en place à Dakar, PCR couplé à la sérologie, qui, pour les patients graves pris en charge à domicile, nous permet d'avoir parfois des résultats dans des délais de deux heures. Et ça, c'est extrêmement important pour nous urgentistes, pour nos réanimateurs dans la prise de décision. Autre élément très important c'est la prise en charge à domicile qui est également une de nos stratégies qui a commencé tout récemment. C'est une stratégie qui est très importante, qui a beaucoup impacté sur nos résultats parce que ça a diminué aussi la charge de travail qu'on avait dans nos centres de traitement et dans nos hôpitaux. Mais ce travail très important doit être renforcé. Renforcé dans les districts sanitaires, mais également renforcé donc avec toutes les personnes qui sont impliquées dans ces prises en charge. Et juste une recommandation, prudence absolue par rapport à ce qui sont choisis en tout cas pour suivre ce traitement à domicile, qu'un choix très rigoureux est fait. En général, on choisit des patients qui ne présentent pas de risque majeur d'aggravation secondaire. Mais cette prudence doit être maintenue. Parce que même à domicile, s'il y a des choses qui changent, s'il y a des signes, euh, d'autres signes qui apparaissent, qu'ils n'hésitent pas de contacter très rapidement les districts qui étaient en charge de la en charge, mais également les numéros d'urgence, le SAMU et les autres numéros d'urgence pour pouvoir intervenir euh, assez rapidement. Ce qu'on a pu noter également au cours de ce sixième mois, c'est la diminution des évacuations sanitaires vers Dakar. Et ça, c'est extrêmement important. C'est une conséquence, en tout cas, de toutes les mesures qui ont été prises, dont la mise en place de ces centres de traitement dans les régions, mais également la mise en place de ces unités de réanimation, mais également de ces unités de soins intensifs dans les régions. Des moyens importants et des équipements ont été mis en place dans ces régions. Je vais juste citer Thiès, euh, Kaolac, Saint-Louis, après Zingenshore et Tamba, et d'autres régions également sont en train de se préparer pour mettre en place ces unités. On, a été confronté, donc c'est le dernier point d'ailleurs, à un problème de ressources humaines qualifiées. C'est tout à fait normal parce qu'il manque de façon importante, hein. ce n'est pas seulement pour le Sénégal, mais c'est pour les autres pays aussi, de ressources humaines qualifiées, notamment de médecins anesthésistes réanimateurs. Ce qui fait que dans certaines régions, certains anesthésistes réanimateurs ont été seuls, ont fait le travail seuls, et c'est l'occasion pour les remercier, mais également pour les encourager. Euh, tout dernièrement, donc, euh, une mesure importante a été prise, c'est de capaciter des jeunes médecins généralistes qu'on va, recruter, de les capaciter en soins intensifs. Et nous allons collaborer, en tout cas avec les autres collègues réanimateurs et le Sami national, pour capaciter ces médecins généralistes au nombre de 100 qui vont appuyer les CTE dans la prise en charge de ces cas graves. Pour finir, même si on a noté une baisse, en tout cas des cas positifs, mais également des cas sévères ces derniers, ce dernier mois, je pense qu'il y a la nécessité de maintenir, de maintenir encore le niveau de vigilance et de même renforcer les moyens de prévention et de limiter donc la propagation du virus. C'est l'occasion de renforcer également la vigilance par rapport aux attroupements, par rapport également aux cérémonies. Mais on a noté également de nouveaux événements, l'ouverture des écoles, l'ouverture des universités. C'est l'occasion également de demander en tout cas aux populations de renforcer ces moyens pour pouvoir faire un barrage à ce virus. J'ai également la lourde tâche aujourd'hui de traduire en Wolof, en tout cas, euh, ce qui a été dit aujourd'hui euh, par rapport à la prise en charge des cas sévères. l'Union 7 Loup euh, si weer bi si juróom-benn weer yi ñu dund yëpp weer bi ñu génn nii dañu noté que dañu seetlu que euh, malade yu sonn yi wàññi xaw nañu wàññeeku euh, ñim ñàkk seen bakkan tamit xaw nañu wàññeeku maa ngi profité ci occasion bi di jaale ñi nga xam ñëpp ñi nga ni nañu seen xarit nañu mois d'août mois juillet août ak août septembre suñu nous euh, ñi nga xam dañ seen de nañ mais lool nak nous ni dañu wara yok tamit suñu liggéey dañu wara tamit euh, sensibilisation population yi li si ñi nga ni nañ euh, cas sévère wala sa cas grave changement amul ni ñi ñi gën ni euh, âgé ñi am nga am nañ plus de 60 ans 65 ans ni nga xam tamit am nañ yeneen feebar seen biir yaram mooy ñi am diabète mooy ñi am hypertension ak ñi am yeneen feebar ñoom la gën a yàpp ci cas sévère yooyu di ñaax tamit euh, suñu compatriotes yi nga xamante ni ñi ngi leen di suivre ci l'hôpital yi euh, pour si feebar yu mel noonu ñuy bañ a rater rendez-vous ñuy dem di leen suivre parce que loolu tamit lu am solo la su feebar bi di di yegsi benen jangat bi ñu am moy yokku nañu tamit suñu euh, suñu jumtukaay en tout cas si fi nga xamanteni fofu lañuy faje maladie sites yi yokku nañu si région yëpp déjà ubbi nañ fa centre de traitement ba pare ubbi nañ tamit ay centre ay site yo xamanteni pour mëna euh faj lu mu gën a gaawee maladie nga xamanteni ni sonn nañ liñu jangat jàngat tamit mooy euh, temps bi ñu doon def pour jël leen ak temps bi ñu doon def ñom balaa ñuy yegg si si fajukaay yu yu sauvetage yeeg yooyu wàññeeku na. Euh, loolu tamit lu am solo la parce que seetlu woon nañu ni euh, retard boobu doon na am euh, lu bari lu mu doon def si réussite faj bi malade yooyu suñu leen teelee jot suñu leen teelee entrée hôpital wala. sam yi wala yeneen service yi teel a jokkoo ak ñoom si téléphone ba dem seen kër mun naa am Euh, complication yi nga xamantene doon nañ ko gis dina wañéku ba paré euh euh euh, euh dese yi tamit dina wañéku am nañu benen jangat si wèr si juróom si juróom ben wèr weer juróom benneelu weer bi moy si test yi am nañ si ay avancé pour cas grave yi am na benn procédure bu ñu dugal euh, weer yi passé té actuellement ñu ngi koy def bu baax moy ñi nga xamante dañoo sonn woote nek seen kër prélèvement bi sax mun nañ ko def foofu ba pare yóbbul ko suñu bopp lu mu gën a gaawee te ci malade yooyu yenn saa mun mën nañ jot sax résultat yi si ñaari waxtu wala ñetti waxtu loolu tamit lu am solo la. bu mujj bi mooy prise en charge à domicile mooy ñi nga xamante ni dañu am doomu jàngoro bi ba pare ñu leen di faj seen biir kër donc loolu stratégie boo xamante ni la dañ ko euh, tëraloon euh, si weer bii passé mais lu am solo la parce que dafa wàññi. charge de travail bi nga xamanteni do lañ ko am ci CTI mais dañuy ségg vraiment ñi nga xamanteni ñom niom ñoo wara am prise en charge à domicile niom ñan la mooy ñi nga xamanteni euh, âgé wuñu c'est-à-dire duñu amuñu plus de 65 ans wala lu stop ba paré amuñu yeneen yenen euh, feebar yoo xamante ni mun encore, gàllankoor wala mun na compliquer euh, indi aggravation secondaire waaye nak ma ngi ñaax ñooñu ñi nga xam tan nañ leen pour ñu def traitement à domicile euh, que ñu yokku tamit seen vigilance que c'est pas parce que ce kër ga lañ leen di faje rek que lepp jeex na foofu sa biir kër ga suñu seetloo même lo xamné ne amuloon si départ ñu wat ni amnañu euh, détresse wala amnañu sax lu bees lo xamné ne euh, na ni ñu contacter rapidement district yi nga xamanteni ñom ñoo leen di suivre parce que district yi ñoom suivre malade yoyu wala ñu woté ci numéro d'urgence ñu mën leen wàllu rapidement ba paré dal di yokku faj bi nu mu gëné gaawee maa ngi tënk ci wolof tamit yenn liggéey yu am solo yoo xamante ni euh, mu di docteur Bousso mu di professeur Seydi mu di euh, euh, docteur Amadou Sall tënk nañ ko ci ci ci ci nasaraan ci nasaraan léegi li ñu mën a seetlu mooy si weer yi ñu génn amuñu benn stratégie boo xamante ni dafa figé donc amoon nañu benn stratégie li ñu def mooy dafa dafa doon wuyu chaque fois réalité bi ba pare doon nañu saytu tamit euh, avancées yi nga xamanteni ni doon nañ ko gis dans la science mais li ñu ko xam tamit ñu ngi ko doon jang ci terrain bi c'est-à-dire chaque fois ñuy liggéey dañuy taxaw di xool jangat yooyu nag euh, tax na ñu changer vraiment suñu doxalin ñu changer également ni ñu doon fajee ñuy changer également donc ni ñu doon hospitaliser ak stratégie bari yu ñu jëloon si avancé yoy tamit jot nañ si laboratoire tamit liguey bu am solo parce que épidémie du set seetlu ñi ngi fatlikou institut Pasteur rek lañ doon defee test Dakar mais actuellement ni fiñu tollu ni amna 10 dix régions yo xamanteni presque def nañ fa laboratoire yo xamanteni ñi ngi saytu ba paré amna 5 cinq laboratoires yu bees yo xamanteni tamit duggu nañ ci biir bu njëkk institut Pasteur rek la won après IRSF e ñew mais légui laboratoire national de santé publique

mais suñu xoolee ci districts yi nga xamante ni euh, am nañu feebar bi suñu suñu 79 districts moom mooy juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent seetlu nañ ni juróom-ñaar fukk yëpp feebar bi gis nañ ko foofu. mais suñu xoolee tamit am na district yoo xamante ni tey suñu xoolee juróom-ñeent yoo xamante ni doomu jàngoro bi amu fa ñooñu tamit war nañu yokk dama leen di sax euh, lim. pour ñu yokk liggéey bi pour que feebar bi bagn fa yegg wala tamit ñu gën ko limiter moy goudom moy salemata moy medina Yoro Fula mooy Janké Maxa Kidira moy Bakel moy Kupentum, moy Dara, mo keur Massar keur Momar sar donc neuf juróom-ñeenti district yoyu actuellement ni doomu jangoro ba gisunu ko fa. am nañ tamit fukk ñet district yo xamanteni xamante ni na feebar bi waye fiñ mu toll nii mun nañ ni feebar bi fay na donc ñooñu tamit liggéey bi war na gën a yokk foofu mu di Koungheul mu di mudi mu di Goudiri raneeru mu di mudi mu di Birkilaan mu di Gossas Jaxaaw Ñaaxar Daaru Musti Kokki kebemer ak Ciloñ beneen jàngat tamit boo xamante ni wax nañ ko fii mooy docteur Bousso tout à l'heure mi ngi ko doon wax mooy si euh, weeru mai ak weeru juin jàpp sax avril tuuti Euh, feebar bi taroon na mënoon nañ ni li ñuy wooyee taux d'attaque li ñuy wooyee taux d'attaque bi xawoon na kawe mais li ñu seetlu ci weer bii ñu mujj mooy ñeenti semaines yi nga xamante ni génn nañ ci taux d'attaque bi mun nañ ni ñaar fukk la ñaar fukk pour cent mille habitants mooy téeméeri junni nit bu nekk te am na tamit beneen jàngat bu ñu def bu ñu wooyee taux de reproduction R0 loolu daal mooy mi nga xamante ni mooy nit ku nekk ñaati nit ngay mën a compte nit ku ñu testé positif ñaata ñeneen nit nga mën a wàll bi ñu seetloo mois de mai juin ba tuuti avril taux boobu demoon na ba 4 c'est-à-dire benn nit doon na wàll ba ñent ñeenti nit donc mais li ñu seetlu ci weer bi ñu génn mooy taux boobu presque 2 la 1,8 pour cent mooy nit ku nekk ku ñu testé deux personnes rek lay contaminé loolu lu am solo la moom mooy tamit nit ñi ñi ngi respecté war nañ ko yokk sax parce que c'est rek lañu mëna pour épidémie bi très rapidement am tamit def recherche am solo la professeur Seydi mi ngi ko wax Sénégal dañu opté suñu malade positif yi ñi nga cas grave ñu leen di jox azithromycine ak hydroxychloroquine loolu sax mais jangat bi que ni faj bobu baax na lool si nga xam ni suñ ko teelee def ba nga xam ni balaa complication yi di apparaître ñooñu presque seetlu nañ ni du ñu compliqué wu. waaye dès que maladie commencé compliqué wu ñu nekk forme grave waxuñu ni du efficace waaye efficacité bi dina wàññeeku loolu tamit lu am solo la. doon nañu wax tout à l'heure ñi ngi si doon euh, euh, ñu ngi ko si doon insister Sénégal nag dugg na si benn benn benn benn recherche boo xamante ni daf si jokkaloo ak yeneen dëkk te defe naa Afrique. Euh, ñun rek ñoo bokk ci étude boobu euh, Institut Pasteur ak service des maladies infectieuses fan ñu ngi ci liggéey bu baax a baax a baax di di saytu benn garab boo xamante ne sax xamoon nañ ko waaye ñi ngi koy saytu pour faj ñi nga xamante ne am nañ forme grave loolu lu am solo la mënuguñ ci wax dara nag waaye nag ñi ngi euh, ñi ngi ñi ngi avancé ndank ndank xam naa fii ak ay diir bu gàtt dinañ ci xool résultat yi xool lan lañu euh, lan lañu euh, yan jangat lañu mëna am si recherche boobu ñu si profito nak di gërëm autorité yi nga xamanteni japp nañ ci bu baax a baax japp nañ si bu baax a baax pour permettre ñu def traitement bob. li ñuy seetlu tamit si weer yi passé mooy test yi maa ngi ko doon wax léegi test yi am na accélération bu baax a baax a baax li tax moo am accélération décentralisation test yi moo tax parce que test yi léegi presque.

Euh, complication du bari ba paré peut-être ñi ñak sen bakken duñu ñu wàññeeku loolu tamit vraiment ñu koy rafetlu ba paré ñuy ñaan donc ñu yokku liggéey bi pour que test yi ñu mun ko def un peu partout ba paré ñu dugal test rapide tamit ñi nga xamante ni ñu koy seetlu ma ngi paré si di gërëm ministre de la santé l'action sociale di gërëm également toutes les directions du ministère ak sama natango yi nga xamante ma ngi liggéey ak ñoom CNGE Mangi. ngi également euh, waa institut Pasteur waa CES euh, service des maladies infectieuses nga xam professeur Moussa Moussa Sedi, moo ko moo ko jiite. maanaam seetlu nañu jàngoro bi wàññeeku na si weer bi waaye nag loolu daf ñu war tax ñu ñaax population yi ñu en tout cas liggéey bi ñu yokk tamit liñ doon def pour def mesure barrière pour wañi jokkale jokkalante bi wañi tamit xew yi yooyu en général suñu setlo foofu la contamination bi di amé mang leen di gërëm di leen sant